ngeen jébbulu jébbal ko seeni gànnaay bi rij lay riqaaba rijaali jàllaa kama jaasa bokki julit yi nu ngi leen di siyaare ginnaaw nuyoo di julit wara a nuyoo ak mbokkum julitam mu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di sant yàlla bu baax ci fi nu nekk ci Mbàkke Kajoor di jataay boo xam ni ko yàlla baaxee mbaa sax waxuma dikk waaye sa yéene joyal sa yéene jëme fi nga war a sant yàlla bu baax a baax a baax lu ko waral mooy li fi nekk ci ay xéewal waaye li fi seexul xaddim def waaye itam li nga xam mooy suñu tex ak tey muy nekk gi ñu nekk ay muridu laay fii la ko Serigne Touba tàmbalee ci lu wër baat bépp solo di jaayante ak sëriñ tubaa di aslamtu nafsi itam fii la njëkk jibee soriwul fii ak mooy lu manqué un kilomètre diggante kër soxna Seynabu mi nu toog ak fii maamam sëriñ Touba nangule Cheikh Ibra Fall ak jaayante ak mag ñu njëkk ña ñëpp sëñ Dame Abdourahmane sëñ Madou Gueye Jëmmooy Cheikh Ibra Njaañ euh, ñoo ñëpp diggante bi matul un kilomètre wala ci lay toll su ko defee kon euh, noo ngi ci kër soxna na bu bint Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké yéen a ngi xool njabootam ñu ngi toog nu ànd koog ñoom bokk ci njaboot gi ki ci bopp bi di Mamadou Bassirou mbakke euh, kii ngeen seen di du kenn ku ni présenté ci lislaam yoonu murit muy Serigne bay Ngiraan Serigne Mbaye Ngiraan bu njaareem di kenn ci kilifa yi nga xam ni yàlla da leen tàggat ci coobareem ñuy leeral jullit yi fu ñu war a teg seeni tànk rawatina ñun ñi e, di ay daw nu siyaare ko bu baax a baax sababu bis bi nag mbokk mi koy laaj bala mu yegg ci sëñ mbay ngir ñu ubbil ko bis bi mi ngi sababoo ci di ci gane àddunaam gane àdduna googu Cheikh Salihu Mbacke moo ko dellu siwaat foofu waaye ñu ko doon ko màggale dëkk bu ñuy wax tey siir ci sëñ Modou Baara mi ko njëkk wu waaye dikku Mbàkke Kajoor Serigne Baara 1910 ci Sànnusi la jógee ci ndigalul Serigne Touba ñëw fi bi muy ñëw dafa mel ni ci wax ji boo ko déggee xamul woon fuy Mbàkke Kajoor ndax daf ni asina lii mina Sànnusi binti xaal ila madinatin laha Mbàkke yu xaal man Mamadou Lamine jot naa ndigal ca ka may jëlee ndigal ca sama sëriñ sama yaakaar. sama wasila Cheikh Ahmadul Khadim ci jóge fii ci sannu si dem ci dëkk bu ñuy wax Mbakke ismu majul la kon xamul woon Mbakke Kajoor ci waxin la waxtu woowu mi ngi war a am 19 ans 19 ans mu ngi toll ak araf yi limu araf yi bisimilahi rahmaani rahim ndax 1895 la feeñ ci Touba fi sëñ Touba tëdd euh, kon bu ak 15 bu xoolee 19 ans la war a am kon kon feeñal mbaax ba tey ajuwul ci at topp ndigal ajuwul ci at. wéyee ndigal def lu baax ajuwul ci ay at Alioune ba muy daaneel xiram ya magul ci amul vingt ans euh, ja at moomu ci la Cheikh Modou Afis ñu bari duñu xam ci woowu mooy sëñ Modou Baara ci la feeñ sëriñ Baara ñëw fi ci ndigalul sëriñ Touba fi la ko mbokkam sëñ Cheikh bala fekk ci ndigalul sëriñ Touba muy lu yaatu waaye lu ànd ak loolu yëpp am na fi ñaar fukki ak juróom ndax 36 la fi jógee loolu itam tolloog li mu yonent yi alxuraan tudd di kahun boo yoree si ndiidi Euh, yallahu bi Musa sididi yallahu bi xalilika Ibrahima bi kalimika ñaata ko yooyu at toll noonu la seen baara def Mbàkke Kajoor jóge fii dem ci sa kàddu ga radiyallahu anhu suñu blaat xam nañ ko euh, mi kaala gi mbaxana mi dàll yi lépp ni ko Abdoulaat ay solo mu sol ba noppi mu sol leneen ni ko xam nga li tax ma def ko mu ne ko déedéet mu ne ko dara taxul bi seen Tuubaa di wax daf fly yaakaar maa ngi taxaw ne maa la fouf foofu seigne touba ji rek la xamni du tas motax ma def li and nañ tukki ñom bañ tamul leen berndel fi barab nit ku nek ci ñaari domi Serigne Touba ku ne indi say ganaar rek la nga am ci teranga bañ tollu ci wàcc xewlu mu melni ku sopp ni ko ay eh, abdullah nañ dem nañ dem ñu dal di tak genn gis nga niñ topante won biñu genné rek dekk ba tak mun ko abdullah fi ak suñu jëm ñi ngi fon do am te yalla dak décrété ko lolu itam wane na ak gëm yàlla ak nangu dogalub yàlla ak it xetti la kon bi mon doono mu nekkon ko xamni daf ni won di gis ku bok ci man baxna rabbi khini khadan xaddan nirani wal ahli wal awladi wal jirani nekkon ko xamni Serigne Touba da ko fetele woon it alxuraan moom Cheikh Amadou Lamine bar motax tax bi di saadatu abrar ma ngi wax subhaana man allamana alquran wa yasarul uluma wal awzan mangi bak di delon jukal di sante sunu borom mi nga xamni moma xamal alquran man na xëyeeg way yëpp misaan yi mu jàpp dal ma ko ci koo xam ni nee ñu ñeen fukki ak juróom yi sax manqué ne ay weer ci bi Serigne Touba dem lu bari da koo tawat ci maam Thierno ci guy Ngora bi mu dikkee sànnoo sit yàggu fa diir bu gàtt la fa def Serigne Touba dellusiwaat laaj ko laaj ko sa àll ba fan la toll euh, bi mu ko laajee euh, Serigne bi ni ko xam naa boo nu ci dimbalee nu jël muy nijaa ji sëñ sànnoo si ndax xam nga foofu la bokk ndax nopp yi riir ak wax ju leerul ji léeg-léeg wax mu naan bindal ci jaww ji nangam te xam nga loolu ñëpp xamuñu ko daana ko wax ak Serigne Fallou radiyallahu anhu euh, bonu ci dimbalé ñu jël ne ko waaw da muñu jakk jaar ci kuy jang waye ki koy jangal du wax ñuy dégg du bind ci xalima ñuy gis kon koku moy cheikh mohammed lamine bala euh, subhanahu man allah mu wax da ko lo bo dem ci mëna lu yu naan dañ sant yalla mi nga moy jangal ku ko neex bi doni ta'allum min kitab koku lay sant way téré alcorane yépp yeur sar yépp way nako mom cheikh mohammed lamine bala kep ko xamne bokk na ak mom serigne touba itam bayyi nga ko xel euh euh dan ko siaré diko li itam limay bëgg wax bokk na serigne fall daf ni daf ko ni way yu gudd la way mel ni ci benn rek ndax Serigne basirou bind na ci mom Cheikh mustapha bind na ci mom mag ñi bind ci mom ànd ak loolu yëpp moo ëpp lu mu way ci doomi Serigne Touba yi waaye Serigne fallu bi nga xam ni boobu koy wax mais mooy Serigne Touba ñëpp it boo ne kon koo laaj tey na am mu am mooy kan du am du am deex Serigne fallu la te loolu moo am dani la la yu jaari ko fil maydaani min ahadi fil ilmi wal jodi fil ilmi wal ilmi aw fil jodi wa nasab man Serigne fallu ma ngi seeraloo aduna bépp ni déet mukk te du am ñu ne ko moo Sëriñ Fàllu li lu mu doon koy wax mu ni Mamadu Lamin Sëriñ Tuubaa lay wax kenn du dab ak mu daw ko dab ci yii ci xam-xam ci tabe ci lewat ci askan nee na kenn du ci dab Sëriñ Bab wayndi baabi ko tul faawu fuudan man kaana minhum saaraqabin aw saarahabin nee na ko yow Mamadu Lamin Baara ku dikk ci yow man Sëriñ Fàllu may seere ni dana fekk ñaar ku xeeme mbir bëgg caa jot ak ku tiit ci biir bëgg ku ko fegal te kenn ku ci nekk dana am arab dana am loo xam ni euh, bat bi lu xala waaye loolee dana am lu kawe njortam ci doon sàkku kon yàgg ci àdduna yàgg jëf lu baax ku gën ñeent fukki ak juróom yoo xam bu leen ko sëñ Tuubaa fanweeri kaamil yu manqué benn daan root ndaaye ci njaareem eh, ni fi ku ma jur wàlliyu la keroog ku ñuy wax sëñ Muuda Hafiis doomam da way dafa dégg rek mu wax mu wax ca kaw mu génn ko ay mbaa méroo kenn du tawloo wàlliyu du mer man ku ma jur wàlliyu ga kon tey loolu tey nag eh, ñu ngi ci soxna say te wëllu ci jur gi la bokk kon nu ngi ñaan yàlla yàggal ko fi na ngeen jébbalu jébbal ko seeni gànnaay birig lay riqaabari jaali jàllaa kama jaasa asalaamaaleykum wa rahmatulah kàddu yu bax ginaaw bi nu sant yàlla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam sant serigne touba khadim Rasuul ñaan sunu borom mu yagal lol a Cheikh sayyid Seydil mukhtar mi nga xamne tay moy cheikh Cheikh Mouhamadul Lamine di Cheikhul khadim sun borom yagal ko fi teweral ko di siaré bu bax sang bu tedd bi nga xamne tay no ngi ci bërëbam di soxna Seynabou bintu al Cheikh Mouhamadul amin xamna li Cheikh Moussa Ka waxon ci qasida gam don tagge bajana bu tedd ba soxna fati jamay taw serigne touba lola nun moyunu moy lam waxon ne jaan ju gor ak jaan ju jigen dangar ya ndax kat xamé na len ci jat ya. jaan ju mu ci don soko ko mu ray la ko xeb jigenu bamba do am yalla domi serigne bamba ju gor ak ju jigen ñepp a addiya ak siaré leen setup sëriñ Bamba bu góor ak bu jigen ko ci siaré mam ja fay la lamu do doon ne su doon góor kenn du mom jumaa ji magi Cheikh Bachir ak alaaji tay ñu nekk ci barabu tedd bi nga xam moy mooy kadior nga xam ne mën ta waxtane yoonu murit te tuddé Mbàkke kadior ndax fi fi la tal bi tak ba daj aduna barab bi la serigne Touba ume wéru koor wo xamné ma nga ume bisub dibéer ñu dem ci ñaar fukki fan ya ak juróom-ñaar tolloo won ak laylatul khadar ñu def laylatul khadar ba beut set ca yor yor ba mu dajale mag ñi ci penc mi nelen safahani rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam bi xawlihi rabbi ashaabaka bilhimma wala turabbihim bidars dars ورب كل واحد بما يليق به دلني على من كان صعبنا للتعلم فليرجع أو يرعى سيقا آخر ومن أردنا ما أردنا فليشر بشيرنا وليقم بأمرنا في لوخيني يونت بصا سلام موي تونين تيغ من سافون تيغ من بسالي فام دي دال تي سما يرام مونيما لي لخو موي رحمه للعالمين تاي مين لخو kon mbindeef yi ya len wara gindi mbindeef yi ya len wara jubal fekkuna serigne touba Tuubaa ñi tektale ni ñent rek lañ amuñu juromel adaluna ala arbaati al aqsaam ala dunya wa daalun ala al xibaada wa daalin ala al xilmi wa ala allah tabaraka wa taala mune waman dalaka ala dunya faqat fatanaka ku la tegtal addina moom da lay fitnaal ndax adduna lu ci waay mën a am du ko doy wa man dalaka alal xibaada faqat adhabaka nee na ku la yàlla tegtal na lu baax tegtal na la lu baax waaye sonal na la jaamu yàlla baax na waaye dafa sonle wa man dalaka alal hilmi faqat arsadak ku la xam-xam nag jubal na la waaye wa man dalaka alallahi tabaraka wa taala faqat arahaka ku lay tegtal yàlla nag kooka moo la nooflaayal mu ne nag man ñëwuma ngir tegtale adduna moom du sama yitte waaye doonatuma koy tegtale jaamu yàlla ak xam-xam rek waaye jëmmi suñu borom ji laay tegtal fii la ko Serigne Touba waxee ci Mbàkke Kajoor fi bàyyi ko mbooleem njabootu sëriñ Touba gi fi bàyyi woon ñuy ay góor mu bàyyi leen fi bàyyi leen njaboot Cheikh Amadou Lamine moo ci njëkk a fekki waajuram bu tedd wa Cheikhul Khadim kon ba mu fi jógee léegi nag ne gis na dëkk yi mu sanc ku ne gis na njaboot yi mu fi bàyyi ku nekk gis na téere yi bind kon Cheikh Amadou Lamine ku ci saayir si man na noo wax ne yàggu yàggu fi de waaye ku gudd fan la ndax nit dund na ay at yu bare bare bari ta def effort yam man yépp te waxuma la jagle yim am rek waaye fi mu jaar ci sahir rek asaka ja buñ ko doon seet ngir mu mën koo lijjante dana jafe kon Cheikh Amadou Lamine kenn la ci gëmtaani Cheikhul Khadim yi yow bii di jël waxtaan wi léppam Cheikh Ibrahima Fall la te ku xam ne ne Cheikh fii la fekk Serigne Touba kon wet googu it gannaaw fekk nañ ko fi ànd ak moom muy tawféex noo ngi ñaan suñu borom yàggal ko fi te wéral ko. Joor ak Bawol ak Saalum ak Jolof Njaay na ngeen jébbal ko seeni gànnaay birig lay riqaabari jaale jàllaa kama jaasa madaar uloomi jàllaa bay Musaa Kaneem bu leen diigati jéegoob njanaaw amul yoon te xam sañ-sañ ba ca baayam lu cay seen yoon sëriñ baa ñoom mu nampal asal dañuy naaw ndogaan mbaa bakk buy fel sawul fafal naaw bu leen amoon te mandal lu ci baatin na leen ma amin barkeb Cheikh Ba